nekkoon nit koo xamante ne ko amoon importance la si religion musulmane bi wax ma sax si religion musulmane xam nga mais ci ci ci ci population sénégalaise bi quoi koo xamante ne yàgg na génn def intervention fu ñu ko soxla we ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale doomam Cheikh Cheikh Ibrahim di ko jaale doomam Baba xam nga di ko jaale euh, Malick Zou Assane ñu ngi koy jaale Sénégal bi yëpp di ko jaale waa Sadj Bambara bi yëpp waaw euh, ñëwaat nañ tam tey seen émission ci laa bokk ñëw tànnal leen ay thèmes yoo xamante ne ci lañ war a waxtaane li ci mel ni Euh, propagation wu euh, euh, feebar bi xam nga temps yi moom nemmeeku nañ ne xam nga affaire bi dafay gën a dafa dafa gën a yokk quoi bi moom dafa mel dafa gën a raakaaju waaw xam nga ñu ñëwaat indi tànnalaat leen beneen thème ci wàllu xam nga denre alimentaire yi nga xamante ne moom la ñu waxoon ne moom la ñuy séddale population bi. début boobu ba léegi test yi gën na yokk comprendre nga instant gars yi ñu ngi def ay tests massifs mais boo xoolee début bi amoon nañ fi benn période boo xamante ne gars yi ñu ngi doon def ay quatre cent et mais quatre cent boobu ñu defoon. comprendre nga cas ay onze la woon ay huit mais tey cinq cent tests lañ def xaw ma cinq cent ñaata nga am cinquante sept cinquante sept cinquante sept cas donc affaire yi boo xoolee du du cas de test massif yi kese kese kese kese kese moom mooy feeñ ci wàllum wàllum cas positif yi mais comme sànq li mu wax affaire yi début bi la te gis nga li nga xamante ne moom moo gën a moom moom moo gën a gën a gën a waral lii nii yëpp yëpp yëpp xam nga la moo la dafa am nga xamante ne moom moo si bokk moom mooy gars yi issant yi nii dañuy wax wàllum wàllum gis nga sécurité sécurité état comprendre ci genre moment yi nga koy xamee parce que yow koo xamante ne ni état boo xamante ne mënul contrôler foro frontière entre région ak région kese kese kese kese kese donc man je me pose la question damay naan ñun ban façon état lañ am quoi d' abord. waaw léegi yow léegi yow fi nga xam ne mënul mënul contrôler frontière ak frontière léegi nga bëgg taxaw mën nga ko defal confinement total. waaw mais bu la defal lan ma ah dama lay laal la. waaw gis total. Hmm. confinement total loolu dépendrul ci état. état bi da lay accompagner parce que état bi moom instant yi jël na décision ne moom daf ñuy accompagner gis nga déggul la mais dama ne la feebar fu mu toll feebar fu mu toll loolu waxuma la état kese rek parce que état moom moo koy décider mais feebar bi fu mu toll instant yi nii li nga xamante moom mooy solution benn solution bi nga xamante moom moo am moom mooy population sénégalaise bi yëpp ñu confiner leen pendant un mois wala pendant xam nga durée bi nga xamante ne ni moom la moom la ñuy mooy quatorze jours li li nga wax la état ba mu ne day accompagner gars yi ëpp na weer léegi mu mot weer est-ce que seetlu nga benn affaire nga départ bi bañ taxee ne couvre-feu corona dafa am soo xoolee Sénégal da daan wéet dëkk bi da daan wéet mais léegi génn gars yi dañoo tëju ba ñu amuñu lu ñu lekk ba sonn moo tax ñu commencé at génn nga embouteillage léegi barki yàlla dafa commencé am si tali bi dama nga xool c'est xam nañ problème balaa ngaa tëj lu nit maanaam xool chaque jour mooy lu may wax a def li ñu amee population nañ état ba mu taxawee nit ñu corona dee leen raxasu gars yi ñu ngi raxasu dee leen nu mu tudd leen dee leen dee leen tëdd huit ñu ngi tëdd huit heures ma dégg état moo dese population population bi tey boo taxawee ne leen tëju leen yow yow xoolal gars yi xoolal xoolal xoolal ñu bëri ñi xam ne daaw ñu liggéey commencé war nañu liggéey Sénégal léegi dafa commencé maanaam da ngay sant soo génnaati dëkk da ngay sant ni dëkk mi activité da la ah ñu ngi commencé war nan la bañu ñu moytontee mais day fekk nga jox leen dara li nga xam ne dana tax ñoom ñu moytandi yow yaa yow seen activité yaa ngi ko àddi plus xoola di xoola plus de un mois gars yi huit seen liggéey yi nga xam te ne xaalis la woon huit mu arrêté seen liggéey mu nga arrêté ko huit heures boobu ba léegi mënoo see avancé benn suuf chaque jour ay wax ay génn naa ah jox naa far naa kii lii après kee laa fal ñun dañu suñ suñoon si koo fal suñu loolu suñu yoon nekku si Moussa Moussa mooy man man ma doon waxee keroog foofu laay delluwaat xam nga boo xamal la discours état bi de mais ba ci ba ci ba ci xaw ma nan laa ko mën expliquer xam nga maa ngi jéggalu de ci ci kàddu bi mais ñenn ci sénégalais naa fekk bi ñuy dund suñu biir sax dafay feeñaale ci biir feebar bi xam nga la moo tax loolu noonu xam nga tey yow déjà ci commencement bi comme ni nga ko waxee léegi-léegi ci commencement bi balaa ñuy wax évolution cas yeeg affaire yooyu noonu parce que tey man jàpp naa ne man su fekkente ne woon du corona du dara maa dox ba daanu ci mbedd bi feebar buñ ma yóbbee hôpital di ma faj man maay fay fay hôpital bi maay jëndal sama bopp garab du ma wax ay état na ma dédommager pour sama njaboot lu ñuy dundee parce que mënatuma lii wala mënatuma laa parce que loolu yàgg na fi quoi am na ñoo xamante ne hôpital ñoo xamante ne ñi ñàkk di rey xam nga moo ëpp loolu noonu mais dafa am affaire yoo xamante ne maanaam volonté politique volonté politique la maanaam laajul ay milliards comprendre lim la bëgg wax gis nga tey mooy comme ni ma doon wax keroog ngay bañ Ablaye xam la séddale saaku ceeb c'est bien xam nga séddale suukar c'est bien séddale lait c'est bien comprendre la yow jékki-jékki-jékki rek def nañ defal nañ bindal nañ la benn décret ne la xam nga port obligatoire de masque man ba fii ma toog mosaguma gis si état bi wala ku ma munti doon koo xamante ne mu gisee da leen masque que masque bi mu ngi à la disposition de la population. yow bàyyi loolu moom duma la bàyyi. non non xaar xaar xaar rek dama expliqué non dama am lu may expliqué. maanaam dafa am loo xamante ne moom moo jiitu. dama ne dafa am affaire yoo xamante ne dafa am benn politique boo xamante ne dès le départ bu ñu ko defoon tey du ñu yegg si fii nii soo waxee nit ki solal masque. da koy jox masque ne ko masque ngi nii comprendre nga foofu laay waxee soo ne gel hydroalcoolique day utiliser gel hydroalcoolique da nga koy fournir gel hydroalcoolique ne ko gel hydroalcoolique ngi nii comprendre la léegi nag yow maanaam wàllu liggéey ak xam nga ne kii ak subventionné fee yooyu même bu ñu ko doon def tamit ñun xam nañ loolu nan la fi yàgg demee fi Sénégal dafay am foo bokk nga jot ci am foo bokkul doo si jot loolu moom bu ko sax gars yi def seen xel man foofu laay waxee quoi kii man euh, cas euh, nu mu tëdd depuis le 2 mars lañ am lañ am kii cas importe fii au Sénégal cas importé égal cas communautaire égal cas égal cas contact égal cas communautaire donc suñ demee ba feebar bi toll fii nii c'est que c'est normal feebar bi épidémie la ñuy wax épidémie saa yu amee ci dox ci benn dëkk baa mu am ci benn gox dafa war dafa war a topp maanaam ni muy dafa war a topp processus bii la war a topp maanaam dafa war a commencer cas importe cas contact cas communautaire léegi nan la ñu war a def pour mën a gérer ka communautaire yi gérer waale en même temps cas contact yi loolu lañu war a xalaat moom mooy suñu suñu nguur gi loolu la war a loolu la a kii loolu la war a jublu léegi moom war na def ay moyens yoo xamante ne ne par exemple bu ñu def nii nii ñu ne dañuy def euh, couvre-feu bi commencé de 6 heures à 20 heures baax na demoon nañ ba ci benn temps amoon nañ ay affaires yoo amoon nañ cas yi commencé nañ wàññeeku ñu dem ba ci kanam commencé cas gën a gën a am évolution maanaam kenn koo xamante ne su amee benn kaa contact rek il a vingt cinq vingt cinq nit yoo xamante ne am na mille chance mu mu wàll leen léegi ñooñu nan la ñu war a def ba mun leen organiser ba mun leen téye ba duñu wàll ñeneen ñi loolu mooy problème c'est tey jii nii suñu état bi mu amul doole boo xamante ne dina mën a permettre chaque personne bu am contact mu am vingt cinq personnes yu nekk ci ginnaawam yoo xamante ne moom mun a leen toppatoo léegi ñun nan la ñuy war a def jox nañ ñu ay masques masques yi nii est-ce que masques yi baax na est-ce que masques yi masques yu ñu waroon a jot. kan lañ jox jot am na am na ñoo xamante ne jox jël nañ ay possibilité jël nañ ay seen moyen seen seen doole jënd ay masques jox ko population bi mais masques yi doyut. léegi ñun nan état bi nan la war a def pour mun a jox masque euh, sénégalais yëpp te xam nañ ne sénégalais yi ci seen bopp ñoom seen comportement ni ñu comporté waroon na am mm, jeexital ci maanaam feebar bi ni muy lu mu leen di dalee ndaxte information yi jotandoo nañ ko information yi amandoo nañ ko mais jusqu'à présent euh, sénégalais ñu ngi def si seen lu euh, ñu doon ñu doon dundee mu yokk feebar ñu ngi koy dundee ban tey. léegi sensibilisation bi dem na mais sensibilisation dañ ko war a gën a approfondir maanaam dañoo war a wàcc si sur le terrain expliquer gars yi confinement yi ce man man sama bopp man dama ne ni confinement bi ce n'est adapté au Sénégal parce que suñuy réalité société moom moo dul benn ñun en Europe ñoom individualiste lañ ñoom mun nañ ko am nañ ay moyens pour def ko mais fii au Sénégal on n'a pas les tey jii nii soo jëlee nit nga confiné ko doo ko ci kër nga ne ko doo génn du doo doo lekk du naan du euh, du am lu mu dundee leneen ak leneen te yow euh, aide bi ngay yaakaar pour nga jot ko yow jot jusqu'à présent jotagoo ko loolu problème la donc lu may lu may kii moom may ñu gën a renforcer kii nu tati mooy jox leen ay ay masque jox leen ay gel jox leen ay savon moom ma leen mën gën a permettre ñu mën a ñu mën a ñu mën a dékku feebar bi ndax feebar soo ko ragalee moom soo ko rabalee doo ci génn état bu ko ragal ñu ko ragal ñëpp di génnuñ ci tey jii nii comme que ñun am nañ possibilité dañoo war a dem que ñu ñeme feebar ba pare def ay moyens dugg ci gox yi def sensibilisation pour mun cee génn loolu rek moo ci mën a génn. nga foofu ma ma ma wax la ko état état Sénégal yi ma gis nii ah suñu waxee dëgg rek ah à part nit am ko mu faj la amul benn mesure d'accompagnement bu mu teg pour jàppale Sénégalais loolu moom nañu leer nañu. parce que non parce que nga nit boo koy dimbali da nga koy dimbali c'est ba mu koy soxla xam la le 2 mars ba tey la ñaata xam la chaque jour di xam la lu ñuy wan dañu wan Macky Sall nekk télé raxasu xam la ay nit yor seen saabu raxasu loolu la ñuy wan quoi ñoom seen mesure d'accompagnement bi xam la la dee leen raxasu dee leen sol max point moo tax gis nga moo tax gis nga man bu njëkk ba dama wax ni yoon la ñu instant yi ni barki alxuraan mooy rey sénégalais taluñu ko parce que non c'est que xam ne problème war nañu ñu dara li nga xamante ne xam a garaaw xam lu xam lu gën a xam a garaaw sax di da nga daan dégg quoi gars yi ne non non gars yi wóoluñu leen mais diggantaan njaay ah, instant ni da ngay jarul ñoo wóolu quoi parce que non maanaam da ngay xam ni ñi pare ñu sax barki yàlla xaaj ñu bay pare parce que xam si fan lañ toll fal te ku ku si fal quoi pare ko joxe ñoom instant yi fan lañ toll si waaw euh, salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar yi ñëpp comme ni ko baaba ji bi doore sunu sanga bu baax boobu di sëñ ma Massamba jàll mi fi bawoo ñu ngi koy jaali àddina bi yëpp ndax wax dëgg sa la woon ci àddina bi daal waaw ndax ku daan jàngale la koo xamante ne kii nii boo am na noo koy dégloo sax da ngay da ngay defe ne da doo mën a wax ni fii nii la bokk te am na fu mu bokk kon bu demee noonu nun ñëpp la demal non kaa jaali ñëpp euh, Euh, ñu joyante suñu wax ci lii ñu fi dajale nag li ma li ma yàgg di wax moom lenn la feebar bi ba léegi am na ñoo xam ne sax gëmuñu ko te xam nga lan moo tax gëmuñu ko sunu état yi ndax état mënumaa nangu état bi comme la lakkañ lañu amoon premier sunu premier cas le 2 mars ba sunu jonn tey même communication même même même kii daal doxalin daal ci boo leen dee seetaan sénégalais yi bu ñu xëyee day mel ni ñoo xamante ne dañuy xaar comme ça genre championnat am nga toog di xaar résultat wu championnat la noo xaar sénégalais yi ñaata cas la noon nangami ñaata contact temps de contact ñaata guéri temps de guéri temps ñaata communautaire ñi ko wàllee fan la ñu jóge fii la ñu jóge léegi lan moo tax nit mën a jógee Touba dem kaw la fan la jaar lan moo tax nit man barki démb man marché laa barki démb am na ñu ñoo xam ne Kaolack la ñu jógee gis naa leen marché fan la ñu jaar ma ne waa ji noo def ba ñëw ma ne ma lal paxe ba ñëw fan la ñu jaar suñu état bi ci boppam moo tegul feebar bi fen comme ñoom bu ñu ñu sonal bu ñu ñu sonal bu ñu ñu li Moussa wax ngeen dindi ko ba léegi ci fal naa Aline Sall fal naa diw sangam fal naa diw sangam ca la ñu ne di leen wutalaat fan la noo sàcce waatee suñuy milliards dong ca la état ne ndax tey tey tey tey tey bëri ba ba mu déparé chef de l'État daa di woo Idrissa Seck mu ñëw woo Sonko mu ñëw woo Kara mu ñëw ak kanati woo na keroog ñu bari ñu ñëw ñoo xamante ne man defe woon naa ba addinay tukki dootuñu toogate keroog ba corona ñëwee da leen a dajale kon na leen corona dajalee woon bu ñu demee dama dema dem ba dajale li war a dem ci corona ñooñu ngay woowaat ne leen nan la ñu war a def Euh, woowe ji ay rakkamake ay goroomake ay ñu ko neex mu fal leen kon ñooñu noonu lan la leen di wutal yoonu fan la ñuy faxewaatee ba amaat ci sunu sunu milliards yi ñu dajale lo loolu doo ngay pexem waaye du leneen waaw parce que bi mu demee dema dem ba dajale la mu dajale war naa woowaat Sonko woowaat sa Seck woowaat Malick Gakou woowaat Kara ne leen ah lii kat la ñu doon jot a dajale kon nan lañ ko war a def ah? waaye dara fal naa diw folli naa diw rek lañ fi nekkee ñoom bu ñuy def euh, bu ñuy def euh, nu mu tuddee ko maanaam bu ñuy communiquer ci affaire bi dañuy mel ni ay théâtre kat Mansour Faye maa ngi koy seetaan keroog muy wax bay xàkkataay mooy bi ko waa ji posé question mu ne ko dégg naa waa ji nga fal sa xarit la daanaka mënoo koo tàkkale ak waa ju baax day wax di xàkkataay nga seetaan waa Italie seetaan France seetaan Espagne seen dirigeant yi bu ñuy wax dañuy wax bay jooy nun suñuy dirigeant bu ñuy wax dañuy wax di xakkataay ngeen bëgg man mi man sàmmkat bi may gëm feebar bi du ma ko gëm lii dong moo indi moo andi problème bi ba léegi affaire bi gën di yokku te kenn koy wax gis nga ñaan ñaan du yàlla na ma yàlla mu ngi mel ne tey ma toog fii tey ma ne yàlla naa reeree ji États-Unis xam nga yàlla mën na loolu est-ce que dana ma ko defal yàlla mën na ko mais du ko def ñaan daa am balaa ngay ñaan jëlal matukaayu ñaan ba noppi soog di ñaan boo fi toogoon naan Sénégal ubbi woon jumaa yi naan Sénégal yàlla na kaay jeex yàlla na kaay jeex te jóguñu sunu état jógul por jeexal kaay nun ñii jóguñu por jeexal kaay kaay day gën di yokk donc. te fu mu waxee ne ma état yi dafa war a jóg tamit mais population seen bopp ñoom dañoo war a jóg tamit pour xeex mu corona yi mu mu génne. sinon lii lii lii état la gën a arrangé ndax état boo xamante ne ne laa de am na ay moyens yoo xamante ne ne mun na koo mettre sur en place mairie ñu ngi fii nii mais am na mairie yu bari yoo xamante ne ne seen kii seen mandat maire yu bari seen xamante ne seen mandat dafa jeex tey jii bés bu état yokkee seen yokkee seen doole maanaam mun na leen euh, mun na leen jox xaalis boo xamante ne la mun a permettre ñu mun a développer euh, kii te ñu mun a produire ay basques yu bari su ko defee ñu mun koo distribuer population bi mais état bi moom moo moom moo waroon jël moom comme que moom moo centré pouvoir bi pouvoir bi euh, xaalis bu mu waroon yore moom la waroon distribuer mairie mairie yi jël tamit xaalis boobu noonu def ko mais soo doolewut sa mairie mairie tamit dañu mën a ñoom ñoo nekk en contact direct avec la population ñoom tamit dañuy am problème pour mën a distribuer ay masques danañ mën a am problème yoo xamante ne pour mën a jàppale ay ay seen population loolu mooy loolu mooy problème c'est que c'est que c'est que chaîne bi si boppam moom moo rompre léegi comme que chaîne bi dafa rompre am na euh, pour pour nga pour nga xeex ko pour nga xeex genre genre épidémie day difficile en Europe ñoom def nañ ko te ñoom dañu am benn système d' organisation boo xamante ne la mën a permettre suñu état bi jëlee benn décision rek day appliqué wu directement sur euh, sur les administrateurs locaux ay genre mais fii ni état suñu boppam moom dafa am benn benn dispensation yoo xamante ne dina duñ ko waroon gérer wu gérer wuñ ko donc ñoom la gën a profité parce que bon Euh, dañ ci bëgg a glorifier wu dañoo bëgg a waneew seen bopp dañoo war a bëgg tamit bon gis seen bopp joxe xaalis affaire yooyu noonu pour mën a prévoir en vue d'une des élections précédentes wala genre yooyu noonu mais bon suñ ko xeexoon ni ñu ko waroon xeexee ba jàpp naa ne corona waroon na fa mën a jóge loolu affaire bi moom xeex bi moom comme li di wax rek des na à tous les niveaux mais li gën a am importance si xeex bi man pour man mooy li Ablaye doon wax ak li nga doon wax sànq comprendre benn bi mooy xam nga ñu changer communication bi gën a sensibiliser nit ñi par rapport ak situation parce que bu ñu tollee fii nii di compter ay mort gars yi naan am nañu ko gëm ak am nañu ko gëmul cas di gën di yokk chaque jour boo yeewoo cas di gën a garaaw xam nga affaire di gën a doy waar xam nga ñuy toll si am na ku ko ku ko gëm ak ku ko gëmul ay état bi mu ngi fal ay ay de pilotage ak ay ay de suivi yu kenn xamul kon affaire bi affaire bi mu ngi cóol mais beneen affaire bi beneen affaire xam nga parce que foofu tamit mënuñu toog fii rek di wax état état état état état Grand Yoff comprendre nga fii dafa nekk euh, quartier boo xamante ne amul benn quartier boo xamante ne moo ko ëpp autorité autorité yi ngay dégg yëpp fii la capitaine équipe nationale Grand Yoff la dëkk. capitaine équipe nationale Sénégal Grand Yoff la dëkk. ah donc jël bu la neexee nga jël ñun ñëpp Grand Yoff lañ dëkk xam nga fii nii ku fi def dara xam nañ ku fi deful dara xam nañ. xam nga parce que dafa nekkul lépp la ñuy xaar ci état af ay jënd masque séddale ko loolu. waa ah. ji bi sànq léegi man wóor na yàlla loolu ngeen di wax man loolu ba léegi man ça me pose problème xam nga la moo tax yéen su ma déggee ngeen di wax comme par exemple xam nga état bi daf ñu war a jox ay masque état bi dafa war a defarlu ay masque xam nga mu joxuñu ko comprendre nga mais masque masque fii nii mun naa la ñun ñu fi toog ñii ñëpp bu dee jënd nañ suñuy masque tamit ah képp ku fi nekk bu jëndee masque masque bi dépassé wul téeméer 500 francs comprendre la plupart si ñun ñi masques yi dañ ñu ko may te gis nga masques yi boo xoolee gars yi dañ ne la waxuñu la masques yi képp koo xamante ne day sol masque day sol masque comme masque chirurgical genre yooyu noonu masque bi nu la neex mu nekk masque de toute façon na la couvrir sa sa baxan ak sa bët sa sa gémmiñ comprendre donc pour nga procurer wu moom loolu c'est dafa yomb sa yére sax xaaral même ma dégg même ma xaaral du ma la sama bopp de waxuma la sama bopp de déglu déglu xaaral hélas déglu ma xoolal xaaral déglu du ne du ne question rek da nga war am masque rek am masque te yow yaa ngi transmettre virus bi loolu loolu problème bi du foofu de hélas problème bi du foofu état bi ci boppam moom moo war a normaliser hélas problème bi du foofu yow ay ay masque masque boo xamante ne ni isien déglum la boo génnee cent francs sax nga am masque nga ciy xaar état sa waay sa waay masque boobu masque bu baax la non wax ma loolu masque bii nii ma sol baax na wala baaxul quoi mais ça dépend ci spécialité yi ñoom xool nañ xool sa masque bi ndax xam nañ baax na wala baaxul est yow yow yow yow na leen yow yow li ngay li ngay kii est-ce que mën na propager virus wala mënu koo propager loolu tamit loolu tamit ça pose mais mais après ma du jox la boobu moom a jox ay normes yoo xamante yaa ngi fees boo bëgg a dee nañu organiser ay tailleur yi jox leen gars yi kii loolu dëgg la mais mais ma yeggali ngir yàlla yow gëm loolu ça ça ce xam nga loolu débat xam nga yow xam nga ne ñun ñëpp xam nañ ni maladie maladie bi dépassé nañ foofu xam nañ ne maladie bi ça existe léegi yow ma la benn affaire yow nga gis instant yi nii degré contamination bi fu mu toll. a yi déggum la yow état bu la defarul yow force da ngay croiser xaar feebar mu ñëw nga ne état la ñuy wax xam nga lan la ñuy wax xam nga dafa am loo xamante ne da lay bul jàpp ñëpp ci sa niveau lañ toll. gis nga non non non même rek même rek au niveau de Grand Yoff au niveau de naa la ko ci keroog mais nag kon war nga xam kon war nga xam ne am na ay famille yoo xamante ne ah. da ngay gis benn pas barki yàlla cent bu ñu dëkkee mënuñu ko am waaw déedéet baaji loolu moom wallaahi du ko am man xoolal da ngay gis ñoo xamante ne mani mani xoolal boobu dix personnes feebar bi mais ma mais ma mais ma dafa am do non non non ngay condition ci autorité yi nga nekk waaw fa laay fa laay kon léegi man fa laay kon man ñëw ma ñëw ñëw fa dama lay pousse fa xam nga fa feebar bi ku nekk dafa war a jël sa responsabilité sa feebar bi mais ma mais ma rek sa responsabilité mënul weesu ma rek ma bu cent franc boo ko mënul jënd boo mënul am masque masque nga ne masque bi da xaar état jënd jënd masque avec baax na jënd masque c'est bon li ngay diffuser euh, li ngay génne est-ce que mën na mën na ko wala mën na ko mën na koo téye wala mën na ko protéger wala du a protéger problème bi c'est nga jënd masque c'est bon mais le problème en est que yow suñu la normalisé wala ne masque bii nii nii la war a demee nii la war a ni dafa war a am benn benn benn course ñaari course tegu ci kawam affaire yooyu noonu su ko defee affaire bi du su ñëwee du mën a génn du mën a dugg affaire yow dina la mën a protéger mais tey jii kan moo war a def loolu citoyen lambda du ko def état bi ci boppam moom mooy moom mooy organiser gars yi jox leen jox leen ay kii ay nu ay tissu jox leen tissu yoo xamante ne yu baax yoo xamante ne gars yi nañu ko mën a defar su ko defee jox ko jox ko population yi wala population yi jënd jënd ci jënd yooyu loo rek la masque yi gars yi di ñaw yii nii yëpp boo seetaanee télé état bi joxe feu vert nee nañ la koo xamante ne waxuma la joxe exemple rek dama wax exemple mais dama ne la gis nga masque yi dama ne la waaw man maa la wax masque cent franc mais dama la bëgg a dama la bëgg a benn affaire dama ne la masque yii nii gars di sol nii yëpp comprendre comme masque deux couches ngay wax nii état dafa joxe feu vert comme gars mun nañ ko sol mais xam nga lan laa mun a wax xam nga dañu ne depuis sànq ba léegi ñu ngi wax ñu ne feebar bi isient déggulum la de toute façon waroo si xaar état ku nekk da nga ko war a da nga sensibiliser sa bopp mais sensibiliser sa bopp mënul weesu nga ne yow mënoo jënd masque saa waay dama lay wax non non non non non hélas hélas hélas du loolu de euh, dafa am benn affaire benn paramètre boo xamante ne daf leen di échappé chaque fois parce que instant suñuy wax nekkul état kese moo tax ñuy wax wax naa la ko nee naa la autorités yi dëkk Grand Yoff su ma la waxee masque da ngay gis benn famille boo xamante ne mère bi moo fa nekk ak paa bi am nañ lu mot six doom mère bi day xëy dem jaayi marché Castor bisaab wala mu jaayi fa lenn ba 10 heures mu mun a yónnee seen kër 1000 francs pour fan famille bi dund. foog nga jël mère boobu boo ko naree jëndaloo 6 masques yu 500 amu ko munu ko même su ko bëggee def munu ko. saf ni moom mooy li ma la doon wax rek li si discours xalif général des mourides socialisme bi dafa war a daw man ci loolu laay insister il faut ñu dawal jër mande si biir affaire bi. xam nga masque 500 nu mu la yombee nii ah, bul foog ne ab noonu la yombee keneen comprendre lim la bu wax koo xamante ne bu xëyee amul lu mu suukaree café bu mu bu mu naan nga bu ko jëndaloo masque bu 500 pour moom jëkkëram doomam ak ak keneen ak keneen xam nga dafa dafa doy waar xam nga moo tax ñooñu xam lu la dafa am loo xamante ne Sénégal ñoom dañ ko ameel Sénégal ñoom dañ ko war a delloo delloowaat Sénégal moment bi Sénégal soxla waaye mooy moment bii ñu nekk ñu def ay effort comme ni même bu fekkente ne état même waxuma état de état état kese de xam nga mais état ak bon ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ay natifu seen natifu waxuma grand kese de mais ku nekk bu jàppalee sa gox rek mu dem. ma wala grand ba ngi xam la ma dégg ñu ne. Ah, damay lire journal pourquoi pas dama lire journal gis bind ne Moussa Wagué xaw ma joxe na xaw ma douze tonnes xaw ma affaire ma toog ba si yaa quoi mais Moussa Wagué quoi Nice la nekk. Cheikh Kouyaté West Ham la nekk xaw ma fan la nekk West Ham la nekk xaw ma Southampton xaw affaire yooyu dëgg la xaalisam la loolu kenn weddiwu ko alalam la loolu kenn weddiwu ko xam la mais gis nga mais nga mit sa quartier bu ñu soxla bu dul daal du dara Cheikh Kouyaté buy fóot sénégalais ñun waxaa daal ñoo ëpp ay satan ñoo koy seetaan ñoo koy support donte sénégalais lañ sénégalais la même bu dul dara sa sénégalais la mais mais doomu Grand Yoff la bëri na si de xam nga temps yi maa ngi doon tourné ne maire bi deful dara gars yi naan ma maire bi lu tax nga mais da koy wax da nga koy wax parce que problème mooy askan moo soxla ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñooy seen mbokk comme am la tey ji bu Sénégal bu Séné FID eh, am na nu mu fi doon ravagé ay gars yi. après seen xaalis du la bu ñu jeexaloon seen xaalis du jëriñ dara. bu ñu fi kii bu ñu sa élection mais bu dara amaatee ka mooy dem si daan wala ka mooy dem def dara ka mooy dem si boor dañ. xoolal Moussa man moom ah comme mairie bi jour ba ngay ba ngay aalu si mairie bi boobu moom wax dëgg fa neex yàlla dama dama dama ànd ak yow jusqu'à jusqu'au jusqu'au bout mais comme en ce qui concerne Cheikhou Kouyaté wala gis nga équipe nationale presque boo xoolee presque totalité joueurs yëpp mhm. est-ce ay déggum la def nañ dara si seen dëkk def nañ dara wala seen région def nañ dara seen gox est-ce ay déggum la mais nga Cheikhou a def loolu moom la concerné li nga wax dëgg la match moom la ñuy dem seetaan day tax ku nekk gën a xam boppam rek ci Cheikhou Kouyaté mais loolu du obligation mais xam nga lan laay wax man depuis sànq ba léegi man sama propos dama siy dellu gis nga gis nga comme sànq ngañ ni mu waxee gouvernement bu deful lii gouvernement bu deful lii man nan laa koy gëmee man nan laa koy gëmee mais feebar bi tollatul foofu gis nga Moussa gis nga naa la xamal benn affaire de gis nga gis nga man man personnellement laay waxal de man du ma xaar du ma xaar si état bi comme par exemple may def li nga xamante ne ni moom mooy ay ay ay yu ndaw ay ma dem jënd saabu 200 man damay xaar état bi jënd ma saabu 200 pour may raxas sama loxo masque bu masque bu masque bu 200. man damay xaar pour état jëndal ma masque bu deux cent bu doon xaar état bi ba léegi dee bu fekkoon ne xaar état moom moo jiitu bi dafa am affaire a def population bu ñu doon xaar état bi si masque dee bu ñu doon xaar état bi si gel hydroalcoolique dee nañ xaar ñu ko parce que ñuy seen matuwaay xam nga dafa am ñoo xamante seen loxo moo jotul seen ginnaaw. ma jot ginnaaw jot ginnaaw yow tey jii tey jii non non déglu ma wax la déglu ma wax la déglu ma wax la déglu ma wax fii la dëkk ay Boubacar hmm? leen lim ay Khalifa Sall fii la dëkk munoo leen lim ba ñu jeex ñoom bu ñu defoon lu ñu war a def ah dinañ mën a taxaw ne fii ku fi génn lii wala waa grave dugg leen seen biir kër yi ngeen toog foofu xam la dinañ ko mën a gérer xam la sans état ak ak avec état xam nga mais instant bi ku nekk sa moyen di boor ngay demee jënd benn masque xam nga ni eau de javel boo ko fóotee sax xamoo sax xat ñu jaay naan ay natt kii nii nii nii mais doo xam gars yi la ñuy def pour am ko wallaay fii da ngay dox gis ku la ñaan cent bu mu jëndee cigarette xam la kafe café nga defar kafe amoo suukar boo ko suukaree xam nga bul xool na yow ci à l'aise rek xam nga ñëpp a ngi si à l'aise xam nga dugal am la jëm xam nga deel a départ raxas loolu saabu gel alcoolique léegi sol masque la maa leen ko seen biir wala bu sob xam lu ñuy wax gant ku solul gant doo génn maam dama bëgg xamal nga yooyu noonu yëpp te ko waroon teel a def mais xam lu problème ñoom dañuy bàyyi ba kaa yi di yokk selon cas ñoom nu ñuy yokkee ñoom loolu si la ñuy évolu si si ñoom non si si la ñuy taxaw ne gars yi nii ngeen di def. te xam te nga lépp xam nga lépp la lalu. dès le départ la. bi am na lii ak lii ak lii moo ko jeexee fexe leen tout fexe le tout sensibiliser gars yi fexe le tout jox gars yi le maximum xam la ne leen sol leen gant sol leen max xam la dee leen gelu forcé ko gaay yi nga xamante ne nga xamante ne su boobaa nga xam ne su boobaa su boobaa dafa benn affaire nda ndax su boobaa nga cas communautaire yëpp xam la benn affaire mooy moo si musal nit benn affaire mooy lan euh, règlement yi ñuy wax nga appliqué ko nga sol gara xam nga yor ma xam la wala boo ñëwee sa gàll nga raxasu ba set xam la peut-être loolu loolu dina tax nga am chance pour mucc si doon de mucc si dafa jafe xam la mais loolu dès le début soo ko def la woon gars yi amaan na kon fi ñu toll nii sax ay 200 ay 400 cas yu ñu toll sax duñu si toll xam la mais ñoom chaque jour xamul la ñoom dañ leen di xaar ñoom suñu communication ñoom si communication rek la ñuy naxee ay communication day leen def lii après ngeen def lii après ngeen def li mel ni feer bi daf ñuy xaar si loolu ak loolu léegi bu ñu jëyee ba si yàgg toll si ay te ñoom déjà ñun ñun léegi ñu am problème ñun dañoo ne 500 lii la ñu am ñoom defal lu ñu waxoon te instant ñun ñu ngi si 300 et quelques eh, la ngeen di xaar ci état bi nga xamante ni moom déjà su fekkente ni mañum communication ak li ñuy jàngale communication Sénégal yëpp ak ñi fi tout ce qui est communicateur si Sénégal yëpp état day fa am problème ñuy def yëpp c'est un discours pour le parce que ñun suñu langue moom la pour cent de la population est analphabète ga nga wax français mooy bul soxlawuñu ñuy dégg li ngay wax léegi yow bu ñu wax foofu waxu communication nga ñuy ñëw waxu masque fekkente ne da ngay jël exemple si benn pays par exemple Maroc l'état marocain qu'est-ce qu'il a fait il a fait de telle sorte que ni masque buy jar boo ko convertir l'argent c'est 60 francs à francs bu gën a cher mais fii defuñu ko dañuy ñëw rek imposer tey sa doom fekkente ne da nga ko dugal ko tout ce qui tous les fournitures mettre abonné pour que mu mën a jàng kooku mën nga ko exiger da ngay def lii da ngay jël lii n'est-ce pas mais yow defoo loolu lépp si nga kaw population nga ñëw naan da nga leen di exiger quoi que ce soit qu'on soit nañ honnête suñu biirandoo yi fekkente ni dañuy wax naan mbirum état mbirum état dans ce bled on sent pas l'état non qu'on se dise bi dañuy ñëw ne la da ngeen def li da ngeen def mais état la la def mu ne bëggul rassemblement nit ñaa ngi xëccoo pour am lu ñu coob kii xëccoo di def rassemblement pour am lu mu coob ki di dina xalaat ay masque nga foog ku xiif di di xalaat ay masque on est dans un bled bi nga xam ne dañ la wax internationalement que këpp fii nii pour am sax un dollar c'est tout un problème du question de ay josé la dañ ko wax international c'est sur le plan international yow tey nga may wax ay wax masque yi ah tu me parles de l'état de quel état tu me parles ah? mairie mairie de Dakar dañ doon def affaire boobu man dama fàtt ñu tudd nu mu tudd Euh, gars yi di dimbale gars yi ci ay tabaski yi ay ah, aide yooyu aide social yooyu gars yi doon def aide social yi gaa yi doon def loolu en temps normal la de fekk pandémie amul feebar amul dara amul mais yow boo gisee rang yi sa yaram day daw da ngay xam ne gars yi dañu sonn comprendre nga waxuma état kese de man li ngay wax nii xam nga da ngay kese mais waxuma la état kese mais dañoo dimbalantewul suñu biir loolu dafa am dañoo dimbalantewul suñu biir du état kese de état ni mu war a defee xam nga noonu la ñi may tudd nii ñi bañ may tudd xam nga tey ji sa xaalis la d'accord yaa ko moom yaa ko ñafe xam nga yow la ko yàlla wërsëgal d'accord nañ ci su la neexee nga def su la neexul bul def bul d'accord nañ ci mais tamit ni nga amee droit bañ a def noonu lañ amee droit taxaw ci kanamu Sénégalais yëpp ne defoo fi dara noonu lañ ko amee droit wax la yow mii ay amul amul ay Mimi Touré fii la dëkk ak ay xalifa Sall fii lañ dëkk ak Abdoulaye Diouf fii la am kër xam nga kii nii nu mu tuddati Boubacar Camara candidat la woon à l' élection présidentielle la doon nekk Ousmane Sonko la doon jàppale ñoom ñëpp kenn gisul leen gisuñu kenn dañoo toog seetaan population bi ba pare naan laa jëndal masque raxasul gel alcoolisé jëndal saabu defal lii defal lii te amul doo ko sax gis. comprendre comme Papis lu muy wax sa population boo ñëwee ne ko defal lii après du ko def gis nga loolu ay mesures la yoo xamante ne état moom moo ko jël imposé la ko gis nga couvre-feu bii nii mu amul droit ko. comprendre non moi je parle pas damay damay damay damay damay détaillé je parle dans le cas général mais dama nekk di détaillé benn benn benn benn benn benn port maski yi xamalum la état bi obligation la ko def pour gars di ko sol comprendre man xam nga fan laa bëgg ngeen comprendre comme bàyyi bi li ngay wax noonu xam nga ñun dañoo dëkk si biir koñ bi yow koñ bi fii nii ban ban fan ban kër nga mun a yaakaar ne ni essence déggu la kër gii boo fa duggee essence déggum la njaboot bii nii ah ñoom amuñu lu ñu lu ñu lu ñu jë xaar xaar xaar même ma yeggale xama même ma yeggale man solution laa lay man solution laa lay wax déglu rek parce que damay expliquer andi solution dañu nekk si benn domaine dans tempo temporel bu ñu nekk tempo bu ñu nekk ñëppam yem ki nga xamante ni kaaw woon sa gàlle ay millions yaa xam da ko dóor wala yaa xam noo ko defee kooku kaawul woon sa sa gaale amul dara yéen ñëpp a yem si ki yëpp a lakkandoo amul ku ki doon fayeeku trois cent mille ak cinq cent mille ak fi yem ñëpp yem état d'urgence lañ nekk ñëpp a yem moo waral ngay gis ni gars bu ñuy euh, comment dire rang pur pour dem récupérer les vivres là y a du tout un problème pourquoi ñëpp di yuuxu di les vivres les vivres les vivres parce que tout le monde est fatigué dans l'ensemble des quatorze régions man dama bëgg ngeen comprendre man fu may waxee dama ne la yéen yéen yéen yéen yéen léegi yéen kon dañuy croiser les bras nous en tant que population xaaral rek déglul di xaar état bi defaral ñu lépp lay laay problème Sénégal laay laay. ah mais non mais non problème Sénégal problème Sénégal problème Sénégal luy ma problème Sénégal. yow bu jëndul mu ku jëndul masque moom état ngay xaar mu defaral lépp. mais yow Sénégal population bi dafa nekk laay laay laay. gars yi ñu ngi sol masque. ñu ngi sol masque waaw kon xam nga ne xaaruñu état. voilà léegi nag nga xaaruñu état moo tax man ma lay wax. mais dama lay wax xoolal doole yokku cere doole ñeex foofu la ñuy waxee. voilà loolu bañu ma ko état bi moom pour accompagner population bi loolu obligation la si moom loolu man bañu ma ko de loolu force la si moom état da ko war a par la force loolu obligation la si moom parce que xam nga état bi dafa nekk fii dañ ko élire comprendre nga pour bu ñu yeggee si genre situation yi nii mooy accompagner population loolu je suis parfaitement d'accord si ay déggum la sànq moo tax bañ naa ko wax leen ko gis nga xoolal gis nga yàlla yàlla mhm. yàlla yàlla béy sa tool xam nga nan laa xam nga fan laa koy waxee gis nga comme man par exemple man personnellement man yow déglu déglu sama tool nag moom béy benn instant doo béy fu mu doo béy moom waaw xam nga loolu rek non man dama lay expliquer ñun d'accord nañ yow li nga wax ni man d'accord naa ci de mhm. maanaam nit ku nekk dafa war a am benn benn nu mu toll daa am benn benn mais yaay dimbali sa bopp waaw non quel que soit quel que soit